ci Tab Tab Seen euh, dalee nag jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee ci mbas mi ñaar fukki doomi àddama ak juróom euh, ñoo dolleeku at ci lim gu ko jot a am juróom fukk ak juróom dolleeku ci lim gu ñu jot a faj benn dolleeku euh, ci lim gu si jot ñàkk seen bakkan Euh, bés yi taliba ngi jël ay bakkan gannaaw ba ñuy nemmeekoo daanaka euh, bés bu yàlla sàkk ay accident waaye tamit géej gi mi ngi jël ay bakkan yu bëree bëre si jamono ji li nga xamante ne ni euh, mooy ndoxteelu vacances yi ak été bi la xew sax ni kii démb ci dibeer bi ca plage bu Malika doon na mbir mu doy war lim gu takku ci ay ndaw ñoo fa dal di lab lu takku lool ci ndaw yooyee daal di si ñàkk seen bakkan dinañ leen ko gën a yàttalal samedi bi ñu génn yemoo nga xamante ne nii eh, laago la ci xel la gendarmerie bu Wakaam gis soxna soosee nag benn waaye eh, moom moo ko séquestré lu toll ko juróom-ñetti at gannaaw ba mu ko eh, sax jëlee soxna ci noonu ne nag ki nga xamante ne nii mooy borom këru dëgg soxna soosee di tuyoo ci turu ba Khady Niang daal dinay signalé wu lépp it danañ leen ko gën a yaatalal ci yile jotaayu xibaar. générosité wu Serigne Abdou Karim Mbacké Falilou doon na loo xamante ne nii ay jege ñaale yëppam ñoo ko xam a weddi moom am na na mu def ak euh, kii di ancien tigre de Fass euh, Tafa Gueye ma demoon seeti ji euh, langue politique gi si xuus liñ ciy wax bokk na si tournée économique bu njiitu réew mi di amal ba mu amal ca bëcc mi nga xamante ne ni dootu ko ko ndaw ya dalalee ca diwaanu saint yi nga xamante ne ni dinañ leen ko xamal ak lu des ci programme bi foofee ca mi moom di Baaba Maal daal dinay prox ndoll ci tournée économique boobee njiitu bëj gànnaaru réew mii ngir interpeller ko directement ci ab doléance ba nga xamante ne ni daf ko dal di soxal Euh, bu dee ñenn ci ay membre APR dañuy soutenir troisième mandat wu seen leader bi di Macky Sall demeewul noonee euh, ci première dame Marième Faye Sall du samay kàddu ancien chef de cabinet njiitu réew mi euh, di tamit jege ñaale première dame Moustapha Diakhaté moo ko xamle fa mu ko teg lépp it danañ leen ko gën a leeralal. def na ay bés ba ay élément wu di tegee loxo benn mafia chinoise bu rëy lool dal di découvrir ay salle de jeu ak ki ay machine ndekete yoo mafia boobu romb na fuuf nañu yaakaare woon ne noonu la yaatuwaay ba yem ñi sax pièce cent franc yi rek la ñu doon jël di koy soppi ay pièces su cinq téeméeri dërëm ñu ngi ko doon coppee nag ca diwaanu Chine. Ah, people danañu si ñu Pape Diouf ak soxnaam bébé ba am na nañu defanteeg waa tous tasar gannaaw ba ñu fa demee feccal leen seen fecc moomee nga xamante ne nii mooy def buzz jamono ji ci réseaux sociaux yi xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci rama mag yi moom moomee daal dinay dégg alxayri àjjuma bi ñu génn kan moo ko jël soxna dinañ leen koo xamal it xibaar bu nakari télévision Futur Média ak Walfadjri ak génnub àdduna ba ki nga xamante ne ni moo di Seyda Mariama Niass nekkoon caméra woman ca télévision Futur Média papa Philippe Ndour daal dina indi ay CD ci ki nga xamante ne ni mooy waajuram bu jigéen Viviane Chidid moom nag ba mu yëkkatee kaddu yooyu mu xam xamle ci waajuram bu jigéen Viviane fa mu toog rek mënatula yëkkati rek beneen kaddu daal di ko si teg gannaaw ba ko émotion ëppee loxo loolee yëpp bu yembe daañu ci toftal ak wàllum yi ngeen taaxir lu nees tuuti gannaaw bàkk bi ma ànd ak yéen ci yàttal wi mu ngoog maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu safoo Dakar bés ngir taataan bés bu yàlla sàkk seen ay xibaar yu wér te wër mbas mi la ñu koy doodee si suñu réew mii di Sénégal tey junni doomi aadama ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn la ñu testé ñaar fukk ak juróom ñoo ci amee coronavirus bi huit yi dañu leen wàll fukk ak juróom-ñaari di ay cas communautaire juróom fukk ak juróom dolleeku nañ si lim gi ñu jot a faj juróom-ñetti si ñu amee tawet gi sonn nañu ba ñu nga rek sauvetage am na kenn ku dolleeku ci lim gu jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi ba feebar ba jamono ji may wax ak yéen ñeenti fukki junne doomi aadama ak ñaar ak ñaar fukk ak ñett ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñooñee ñeent fukki junne doomi aadama ak juróomi téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn faj nañ leen ba ñu wër junne doomi aadama ak téeméer ak juróom fukk ak juróom ñàkk ci seen bakkan jamono ji ñaar téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ñoom ñoo nekk rek amee lii di coronavirus bi si réew mi ñu leen si traité accident yi bëri na lool bés yu mujj yi route nationale 6 bi daal dina defati ay victime benn minicar bu jógee ko woon Kolda di dem fa moo daal di këpp ca taliba accident bi nag mi ngi amee si booy toll ko dëkk bu ñuy wax la bokk ci commune bu Medina Elad samedi bi ñu génn ci ndortelu ngoonaa ngoon gi nag la daal di am juróom-ñeenti doomi adama ñoo si jëlee ay gaañu gaañu yu graaw ba sapeur pompier yi évacué leen hôpital régional ba oto ba moom lépp daal di yàqu ndax. nu accident ba doyee waar euh, bu ñu sukkandikoo ci ña ko fekkee chauffeur bi da doon daw xël euh, tax mu dérapé ba mu yemee ca virage ba ñoom ñoo ñii nag ñoom ñoo ëpp chance sax waa Vélingara ajjuma bi ñu génn euh, foofee tamit accident dafa am ci ay boori 6 heures du matin benn bus ba doon dem Vélingara dal di mbëkkanteeg benn sept place bu doon dem ca Tambacounda accident boobee nag mi ngi amee ca ba ñuy yemook benn doodaan bu nekk Sinthiang Chérif ci accident benn soxna euh, bu ñuy wax OHB dañu see ñàkk seen bakkan ci saa si euh, ñeenti doomu yaadama jëlee si ay gaañu gaañu yu graaw ñu évacuer leen centre de santé bu Vélingara euh, laata ñu leen di yóbbu urgence ca centre hospitalier régional bu Tambacounda bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi soxna su si ñàkk bakkanam soxna ba cousin wu chauffeur bi la. chauffeuru Baba Maal bi daal dinay def accident oto ba nag daa jékkee-jékkee rek pneu avant ba éclaté daal di explosé bu ñu sukkandikoo ci chauffeur ba ne nag la la ñu doon daw sax bëriwul woon tax rek mbir mu bett leen nee na 60 euh, euh, jàpp 70 kilomètres à l'heure la ñu doon daw ba pneu ba éclaté nee na oto ba déséquilibré euh, mu nekk di naxanteek moom bu oto ba wàcc taliba gannaaw ba mu perdre contrôle oto ba def tonneau yu bëri waaye heureusement ñoo ngi takkoon seeni ay ceinture après ñu détaché seen bopp génne seen euh, bopp su ñu ne la population ba daw see ñëw ñu dal di yëkkati oto ba waaye nag nee na alhamdulilah amul blessé amul lenn nee na Aïssata Tall Sall mu nekkoon sax seen ganna wàcc na ñëw jël les nécessaires Baba Malit nee na jaaxle woon na lool ba sax yebal ay oto ñu ñëw jël si leen ak seen i ay bagage waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte rek y avait plus de peur que de mal. bés yi taliban ngi jël ay bakkan ndoorteelu vacances yi lee ak été bi démb ci dibeer gi lu ëpp fukki ndaw ñoo dal di lab ca plage bu Malika juróom-benn ya ñàkk nañu seen bakkan ñeent ña sapeur pompier yi daal di leen évacuer hôpital li lee xew ca Malika nag dañuy fàttali ñeenti xale yu seen at tollu si juróom-ñeent ak rek euh, fukk ak ñaar doon jàngi alxuraan ca Kër ma Masamba yu desoon ca géej gaajuma gannaaw ba ñu doon sangu ci plage yu Benno sur Mer bi Mamadou Ba ay atam tollu si fukk ak benn Mouhamadou Thiam fukk ak ñaar fukk ah, dañoo demoon lekki kër Sadio Thiam benn jàngalekatu daara ah, ba ñu fa jógee nag ah, foofee ca quartier Massamba ca Mboro la ñu dal di rek jubali ca géej ga sangu ji ba ñu demee nag ca géej googee la ñu fa lab ba tey jii rek ñibbisiwuñu gannaaw ba ñu ca desee Euh, ci lu day waar lu am démb ca plage bu Malika lay desendeek yéen ba tey ak mbirum ndaw ya fa lab euh, daal di ñuy jot xibaar ni lim ga sa ñàkk seen i bakkan sax daal di nay yokk ndaxte euh, lim ga tolloon ci juróom-benn daal di nay mujjee ji jamono ji ci fukk ñoom yuñ nag fukki ndaw yooyu yëpp ñàkk nañu seen bakkan ca seen lab woowee ca plage bu Malika ñaari doomu aadama yu sapeur pompier yi sauvé ñoo ngi leen évacué hôpital bu Kër Massar recherche yi nag ñoo ngi koy wëyandi ba tey am na ñenn ña nga xamante ne nii. gis euh, gisaguñu leen ba jamono jile may wax ak yéen démb nag plage bu Malika nee nañ daal mën a woon sax gis suuf sa ndax ay xale ya fa fees dell ña fa lab nag nee dañu doon seppi rek ca géej ga nit ñi di dal di leen di rangale ca suufu pont ba nga xamante ne nii a ko gis rek dal di tudd yàlla. la am ca plage bu cité Cyprès bu mbaaw doon na lu yéeme gannaaw ba plage yi nekkee tamit ay bërëb yoo xam ne yenn góor ñi dañu siy profité si désordre bi ngir def seen i jigéen ñi Mati Ndiaye nag du weddi li benn yoona gannaaw ba mu ko dundee moom moomee nee na dafa nekkoon euh, rek di sangu jékki-jékki rek sentir benn xale bu góor bu ñëw rek tafu ko ngir ne da koy jéem a jàngal fee si noonee mu yóbbu ko ba fu sori lool ca ndox ma tax mu doon nekk di yuuxu ba noppi di accroché wu ci moom si euh, noonee nag la waa ji profito euh, ngir jéem ko violé ak baaraamam heureusement kenn ci maître nageur moo remarqué ni dañoo sori di ko sauvé Euh, Maty nag nee na depuis euh, booba ba tey rek bu demee ca plage du nangoo soobu lool ci ndox mi ndax day yaakaar ni nit kii dina réussir rek siif ko comme na mu ko bëggee woon def. samedi bi ñu génn yemoo woon nag fukki fan ak ñaar ci weeru juin bi ñu nekk ab soxna ba nga xamante ne nii la ci xel la gendarmerie bu Wakam dal di gis comme ni mu leen ko waxee ci ndoxtel li mu moomee di wuyoo ci turu ba Khady Niang borom këram moo ko séquestré woon ci ab bërëb bu doy waar lu jege juróom-ñetti at découverte bi nag ay éléments yu gendarmerie bu Wakam ñoo ko dal di def ci direction major Lazare Tine ci ba ñu defee benn descente ngir ab opération sécurisation zone ba. gendarmerie nag teg na loxo borom kër ba ba noppi ubbi si enquête bu ñu sukkandikoo si xat yi ba mu jógee ko village bu Fissel Mbadane atub 2013 wakkaam la fële di wut néeg ba mu luwee si noonu la dajee ak benn waay mu jox ko fa mu nekk ba noppi ne da koo takk soxna depuis boobu nag foofee daal mun nañoo ne kasoom la ndax te jógu fa ba tey jilee xat yi nag ci anam yu doy waar la dëkkee ci bërëb boobee toog na fa sax ay weer yu bëri gisul ndox ngir mën a sang yaramam ñuy def jigéen ñi daal nay taxawu xadi ba noppi informé association ànd taxaw ñu wéree di te yàlla tax euh, petit comité bu gendarmerie bu Wakam réunir jamono ji mooy euh, rek euh, taxawu ki nga xamante ne ni moo di soxna si ba noppi di lancer appel ngir ñu dimbali leen ñu mën a gis famille yu xadi Euh, ba tey rek si mbirum Khady Niang mu benn waay séquestré lu toll ak juróom-ñetti at ca ancienne piste ak xibaar bu bees ba ñu ci jotaat gannaaw euh, ba mu ko jëlee soxna te xelam neexul euh, gannaaw nag ba gendarmerie bu wàkkaam xam leen ni gis nañu ko borom këru Khady Niang dëgg di Ousseynou Ndiaye daal dinay wane boppam bu ñu sukkandikoo si moom def na juróom-ñetti at moom ak famille am di wër kii di Khady Niang mu dawoon dugg Ndakaaru soxna soosee sokkee ca Fissel Mbadane te mi neexul benn waay bu ko proposé hébergé ko ko séquestré depuis booba ak léegi gannaaw ba mu ko jëlee soxna ci intermédiaire benn jigéen ba nga xamante ne ni xamaguñu identité ma Ousseynou Ndiaye nag daal dinay tontu laaju gendarme yi ca brigade bu Wakam ka ko kidnappé woon moom moomee caabi féete na ko gannaaw jamono ji may waxeeg yéen gannaaw ba mu nekkee en garde à vue leneen discours ñeenti soxna yuy jaay seen bopp ya ñu jàppee ca diwaanu Touba choqué na public ba doon teewee àtte ba ñoom ñeent ñoo ñi ñaar ñi am borom kër yeneen ñaar ñi tàggoo daal dinañu leen di àtte ba noppi ca tribunal de grande instance bu Diourbel si waxtu bu étudiante bi Nogay Thioune di jooyee jooy yu métti yeneen mise en cause ya Ndeye gay di marié Yacine Tall ak Astou Ndiaye mbooj tamit di marié dañu doon assuré show ba ca rek foofee ak seen déclaration surréaliste ya ñu doon def. mu am borom kër Ndeye Gueye daal dina eh, dugal ñeneen ña moom moomee ay atam toll si ñaar fukk ak juróom daa xam le ni Yacine Talla moo nekkoon chefu bande ba laata muy naan ay client wam si diggante 20000 ak 25000 la ñu ko doon fay waaye Yacine la doon jox koppar ga moom nag nee na ci biir appartement ba la ñu doon recevoir seen i ay client bu dee Nogay Cuun mi nga xamante ne nii situation beeg eh, réaction public bi daf ko dépassé dafa weddi mbir yi waaye nag convaincre leen eh, ci waxtu bu avocat yi di def plaidoirie étudiante bu juddu atum 1999 euh, mi ngi doon tuur ay rongoñ ca box accusé ya euh, wuuteeg trio ba Ndeye Gueye Yacine Talla ak Astou Ndiaye Mbodj euh, gàccee leenu bëggoon a rey rek ba tax ñu doon nëbb seen ay xar kanam ak seen fulaar ya ci fàttali ñeenti jigéen yooyee di jaay seen bopp te ay éléments yu poste police bu guy mbind teg leen loxo ñoo ngi leen di toppee prosénétisme ak ñàkk bindu ci fichier sanitaire beeg social bi donte seen avocat yi dañu doon ñu bàyyi leen procureur daa sàkku ngir yoon def liggéeyam ci ñoom mbir mi nag tribunal mi ngi ko war a délibéré alxames buy ñëw ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar ba générosité wu Serigne Abdou Karim Mbacké Falilou doon na loo xamante ne ni ay jege ñaaleem yëpp ko xam ba tax na duñu ko mës a weddi si ñoom bokk na ci ancien tigre de Fass bi di Tafa Gueye mu demoon seeti ji ko si noonee la bàyyi Abdou Karim ko koppar gu takk lool may ko ko moom ak magam bi di mbay Gueye di geste bu neex lool directeur technique Fass bi. politique euh, tournée économique njiitu réew mi Macky Sall ca béj gànnaaru réew mi dootu ko fàtte ndaw ba Saint-Louis nag dañu ko doon wuupo ca ba muy dugg ca ancienne capitale u Sénégal euh, bu ñu sukkandikoo ci programme visite bi ca Saint-Louis Macky Sall mi ngi ko tàmbale ak ay visite euh, samedi si njeextalu journée bi ay casier wu fanaay ak inauguration wu Talib Taredji Podor di njiitu réew mi daal dinay rek lancé ay liggéeyu ba yoonu Jatar Alwar Kaka Demet ak ay liggéeyu ba dorsal électrique wu Ndioum ak rek Linguère euh, ci altine ji euh, njiitu réew mi ñoo ngi koy xarandi ca Ayere Lawo euh, Pété ak Mbolo Biram njiitu réew mi dina dem tamit Agnam ak Tilogne bu mu war a inauguré benn hôpital ak benn poste de santé Macky Sall dina fanaan guddib altine jile ca Matam bu mu war a jiite ci ëllëg sa ab conseil présidentiel de développement gannaaw réunion bi njiitu réew mi dina dem. ngi jiloon euh, ngir lancement officiel yoonu Dande Maayo bi ak inauguration lycée Assane Sadio Diallo bi euh, njiiti réew mi dina jiite tamit àllarba ca Matam benn conseil des ministres laata muy lancé ay liggéeyub centre régional hospitalier bu Matam ak aéroport régional Ourossogui bi alasa alxames njiitu réew mi dina dem Kanel bu mu war a inauguré benn daara moderne tronçon Ourossogui Amady Ounaré ak ay pont wu Ganguel su sulek wendu Boseyabe ajuma dina inauguré ay réalisation Promoville ci Matam ba noppi lancé ay liggéeyu maison de la jeunesse ak citoyenneté bi état pour raneru bu mu prévoir samedi mooy tëj tournée économique njiitu réew mi ca bij gànnaaru réew mi njiitu réew mi amal na ba noppi tournée bu njëkk ci région yu Kaffrine Kaolack Tamba ak Kédougou Euh, comme ni ma leen ko xamalee woon woykat bii di Baaba Maal daa dinay euh, prox ndoll ci tournée économique u njiitu réew mi ci bëj gànnaaru réew mi euh, ngir interpeller ko directement ci ab doléance boo xamante ne ni daf ko soxal mu sokkee ko foofee ca Podor Baaba Maal daa sàkku ci njiitu réew mi tabaxu ba benn université ci gox boobee a ñu tuddee ko benn figure historique u l'islam bu mag El Hadji Oumar Foutiyou Tall di betam bu mu gën a bëgg a gis ci jamono jilee muy dund bu ñu sukkandikoo ci Baaba Maal nu ñu gën a mën a dimbalee ndaw yi moom mooy offrir leen éducation ndax mooy garanti wu avenir bu mucc ayib. bu dee ñenn ci ay membres APR dañuy soutenir troisième mandat seen leader bii di Macky Sall demeewul noonu ci première dame Marième fay Sall du samay kaddu ancien chef de cabinet njiitu réew mi di tamit jege ñaale première daam Moustapha Diakhaté moo ko xamle moom nag nee na première dame nekkul ci logique gu troisième mandat wu Macky Sall te mësu koo xamal li ni mel si noonu mu ne sax nu ay relation wam ak Macky mujjee daa métti Marième fay Sall ndax bëggul woon ñu régler mbir mi politique politicien euh, Moustapha Diakhaté nee na tourné na définitivement page yu APR euh, tey xamle sax ni euh, mi ngi ci tànk sos mouvement bu bees bu muy dippee lu jubbanti Sénégal te chantier bu njëkk ci mouvement wam boobee mooy ab pétition contre troisième mandat wu Macky Sall Moustapha nee na dinañu tabler juróomi million signature à travers ab pétition bu ñuy lancé ci internet bi ak yeneen i support yi pétition bi nee na dinañu ko présenter tamit religieux yi yu nekk ci réew mi ak institution internationale yi maître El Hadj Diouf euh, mu lu tukki ba nemmeeku ba FHG amal këram di beerub démb bi euh, xarandiwul lu yàgg ngir dalati Ousmane Sonko ne seytaane la partiwam bi euh, di ay reykatu nit ay saagakat maître El Hadj nag kontaanul sinu dossier buy wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko yéexee gannaaw ba mu xam leen ni dañu nekk di guerre ak seytaane ak tamit ak ab gouvernement bu set satanique buy bàyyi mu jàll si noonee xamante ne nag ñëpp xam nañu ne Sonko lenn rek ko soxal di taal suñu réew mi le di Sénégal. Sadio Mané du wax déet Guy Marius Sagna Augustin Senghor ak Matar Ba recadré ko ci sortie ba mu def ci melokaanu stade Lat Dior bu Thiès Guy nee na Sadio dafa laal problème bu gën a sérieux comme na mu ko yaakaaree si noonu mu ne atub 2000 Dakar dina mel ni Paris bourgeoise bureaucratique bi constaté ni Sénégal du Liverpool tàggat yaram mooy parti bu gën tawat ci yaram wi Sénégal ak Afrique feebar mënuñoo euh, am benn îlot de sport bu baax si ab océan wu problème Sénégal Euh, lan moo tax seen train de vie wu njiitu réew euh, ministre député yeeg yi ni mel gën a ñoŋ bu guvernement wu réew yu gën a riche Sénégal ba loolu weesoo guy ne suñu ressources yu njiitu réew mi di détourné ak man yu si réew mi moom mooy impacté ci wàllum tàggat yaram wi. def na ay bés ba ay élément wu dikk tegee loxo benn mafia chinoise bu rëy daal di découvrir ay salle de jeu ak i machine ndekete yoo mafia ba moom moo gën a yaatu nañu ko yaakaare woon bu ñu ci xibaar yu bàyyeekoo libération. Libération ñoom ñooñee dañu doon récupérer frauduleusement ay pièces su cent francs maanaam ñaar fukki dërëm di koy yóbbu Chine ba ñu yor ay machine di jël ñaar fukki dërëm yooyee di si defar ay pièces su téeméer fii si Sénégal nag suñu ay compatriotes yi di Amath ma Massamba Gaye Ndiaye ak Ismaïla Mbaye ñoo leen doon dimbale ñoom ñëpp daal dinañu leen di teg loxo mafia bi nag yemul Sénégal képp ndaxte chinois ya ñoo nga daanaka fépp ci Afrique de l'Ouest bu ñuy jëfandikoo CFA mënatuñ koo teg gët ndaxte dafa manqué ba rek kenn mënatu ko gis. Euh, people euh, Pape Diouf ak soxnaam bébé Bass daal dina ñuy am nañu defanteek waa Toustasar euh, gannaaw ba ñu fa demee feccal leen seen pecc moomee di def bës jamono jilee si vidéo ba ñu ciy biral couple Diouf daal dinay xam le ni may na leen mille maanaam genn wàllu ba million xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci ram Macky moom nag daal dinay dégg alxayri àjjuma bi ñu génn yemoo woon nag fukki fan ak benn ci weeru juin fi mu ne nii madame Faye la ñu koy dakkantalee takk bi nag ay nit yu siiw ñoo ngi fa woon comme ñu si mel ni député yi di Sirane Ndiaye la Lyon de Mbour Yaya Diallo bu Tivaouane ak i ñeneen ak i ñeneen ñu ngi leen di souhaiter ñoom it heureux ménage monsieur ak madame Faye xibaar bu nakkar yi tàbbi na ca télévision Futur Média waaye itam ca Walfadjri Seyda Mariama Niass mu jógee ko Walf bu yàggul dara rejoindre télévision Futur Média bu Youssou Ndour moo génn àdduna moom moomee caméra woman la fa woon li ni mel nag mi ngi dalaat ci ndodd sax presse bi ci waxtu bi lee ñuy jooyee ñetti agent leeral yi te noppeeguñu Euh, si noonu équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi koy jàll famille yam waa TFM ak Walf Fadjri rawatina euh, presse gi yëpp. ca télévision Futur Média laay des ak ba tey waaye bile yoon ak seede yu fa Philippe Ndour indi ci waajuram bu jigéen Viviane Chidid euh, papa Philippe nag nee na en tant qu'artiste gis na ni yaayam polyvalent la ci wàllu musique ndax genre musique boo ko jox mu dóor ko mu daanu te moom daf koy inspiré si mu ne sax si Sénégal gi a yaayam jilee di Viviane Chidid moom moo gën ci àdduna gi te moom Philippe euh, gëm na ni nekk yaay moo ko gënal sax nekk wëykat euh, te yaay yu ñëpp la di li nga xamante ne ni moo tax mu fonk ko euh, Moustapha Dieng PDG Sentar Vision di borom këru Viviane bi woon daal nay fësal ay photo mag soxnaam su bees ba mu takk comme nu ngeen koy gisee noonu soxna bu Moustapha Dieng boobee sax yëkki na ay kàddoom yu njëkk daal xam le ni borom këram gi xaritam la te mi ngi koy ca ëpp solo. Leya na bëggul ñu koy eh, fàttali la tàggoowam bi nga xamante ne ni ëpp na juróom-benni at boobaak léegi mu amaat borom kër nekk tamit yaayu ñaareelu doom taskatu xabaar bi daal nay recadré ña koy critiquer eh, ci Instagram mu kalm ba noppi discrète Leya du bàyyi bi la yoon rumeur yuy daw ci eh, dundam wa ila vie privée ma ci Instagram la dal di capturé ay image yu benn article buy waxaat ci tàggoowam bi donte tourné na boobu les pages ci noonee mu ngi leen di ñaan ñu dakkal ndax bëggatul a wax ci vie privée waaye nag yenn moment yi faw mu rectifier mbir yi ndaxte dañuy nekk di publier même bêtises yi ma xuus ci xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe ak wàllum football Laurent Chevalier moom mooy euh, co-président wu club bu cardiologue yi si wàllum tàggat yaram référence su ligue nationale rugby bi daal dinay dikkaat ci mariage bu Christian Eriksen daal di def samedi euh, bi ñu génn si ba ñuy amal rencontre Euro 2021 bi si diggante Danemark ak Finlande euh, bu ñu sukkandikoo ci Laurent Chevalier bu ñu gaawul woon jël en charge kii di Christian Eriksen kon da doon da doon ñàkk bàkkanam di li nga xamante ne ni ay soppeem euh, bëgguñu ko benn yoon.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 Orange Money jërëjëf tap tap seen